doté commune bu nekk Dakar 19 communes c'est différent nga jox commune Sénégal yëpp 1 milliard. sur un budget de 7 7 7 milliards 500 millions. loolu moo tax sax koy jëlee bon bref. Euh, agent d'emblée daf la poser benn question bon lu ma am envie laaj dans un premier temps moom mooy yow kan moo la mandaté nga ñëw ci plateau bi nga wax au nom de Taxawu Sénégal. man waaw kan moo ma mandaté. waa kan moo la wax demal nga wax au nom de Taxawu Sénégal. non man Birame moo ma oo invité ma. ok. mais waxuma loolu dama ne seen parti. est ce que am nga autorisation bu lay permettre nga ñëw nga toog nga wax au nom de taxawu Sénégal. non cette question là c'est par rapport à quoi. mais dama laa laaj par rapport à quoi la tontu ma. mais question. dama ne après non en fait après di xam lu ma bëgg a wax quoi dama ne. Mhm. Euh, seen parti kan moo la wax nga ñëw nga wax au a de taxawu Sénégal wala ndax seen parti yëg nañ la wala yëguñu la loolaa loolaa bëgg a xam. déggoo li ma la wax ne la. man Birahim laa la woo Birahim. Hmm. Birahim Camara. waaw moo ma oo invité ma ci plateau bi. soo waxuma waxuma kan moo la woo ku la woo. ñëw ñëw la. waaw ak kan par exemple Birahim Birahim su la woowee rek nga ñëw. Uh-huh. Euh, doo tëb tëb rek ñëw si plateau bi di wax honneur taxaw Sénégal. est-ce que mais parce que man je suis responsable dans taxawu Sénégal. tàggoo kenn ah, lu tax mu laaj la loolu moom mooy lan. moom mooy je dirige une structure non ça c'est pas saa moom ah. doo ñëw nag di bu kii lan lan la ñuy posé question ak ñu ngi ko dul posé da ngay to too mënee nga bu ma la laajee nga tontu soo mënul nga ne mënuma tontu mu jeex loolu ba lu tax ma laaj la loolu moom mooy Aïcha daf la laaj ne la euh, parrainage yi fan nga euh, comment dire dépôt candidature foo leen si toll nga ne yow amoo amoo amoo amoo habilitation pour tontu si loolu mhm. ma ne la bu fekkee dañ lay mandat boo demee bañ lay mandaté ngay ñëw di toog si parti politique di la mandaté ngay toog si plateau télé di wax foog nga am habilitation pour wax ba mais nekkul si lépp ngay wax aussi non non sëñ bi nekkul yow yaa may wax si li may wax ak li may wax mais loolu loolu waaw actualité la yow non même si c'est c'est une actualité man est-ce que est-ce que man man jox nañ ma jox nañ ma tey kii pour ma wax ci loolu d'accord bon bon ok d'accord on évacue ça ba lu ma bëgg a ah. ñëw rek moom mooy parti yu taxaw Sénégal def nga fii euh, Ah, ah ok d'accord plateforme. un parti politique. d'accord plate plateforme. comme tu veux. Euh, programme politique bon wax nga fi dem nañ fii dem nañ fii def nañu euh, def nañ constat dem si dëkk bi fii amul courant et tout mm-hmm. euh, sauf que bon politiciens yi man loolu déception la si si man su ma ko gisee parce que dañuy bàyyi campagne électorale commencé mm-hmm. ñu ne dem nañ fii def nañ nangami kilomètre dugg nañ fii amul courant mm-hmm. et puis Euh, constat bi nga xamante ni conclusion bi nga xamante moom moo moom lañ si tiré moom mooy constat bi nga xamante ni moom lañu def moom lañ def sur le terrain ci noonu ci la ñuy def genre programme politique alors que pour man xalifa Sall def na plus de quarante ans dans le champ politique war na mën a weesu loolu si ay constat ay ñu nga xamante ni sa genre gi nga xamante ni ñoom ñoo koy waxal di topp ci ne dem nañ fii euh, foog ñu électrifier dem nañ fii décentralisation ñoom normalement mm-hmm. Khalifa Sall ba léegi kenn gisagul programme politique am alors que pour man loolu euh, bon question la sax bu ma lay posé est-ce que jàppoo ni échec la le fait que mu def car plus de quarante ans si champ euh, politique bi mënul la tëggal presque deux mois élection présidentielle benn programme politique boo xamante nit yi dañ si tënk lu leer au lieu de nañ fii électrification amul courant fii il faut ñu joxe xaw ma euh, communes yi amuñu budget est-ce que loolu nekkul retard nekkul échec de votre part euh, que nit yi actuellement da ngeen leen war a soumettre benn programme politique bu leer nañu boo xamante ne dañ ci mun basé wu pour wax ni lii c'est réalisable lii c'est pas réalisable. c'est quoi la question. dama ne. Mhm. dafa mel ni yow may xool ni mais déglu woo ma ne. Mhm. xalifa Sall def na 40 ans dans le champ politique. Mhm. ba léegi mënuñu wax ne lii mooy programme politique am sauf que day basé si euh, euh, motali yéene bi nga xamante ne moom lay def. pour di koy defee en gis de campagne loolu laa bëgg a wax est-ce que loolu nekkul échec leer na. waaw léegi man li ma la wax ni dafa leer man dama ne ñun c'est-à-dire ñun programme bu ñuy def bi programme boo xamante ne programme bu inclusive la cest à see bëgg boole population bi tey dañoo war a passé ci Sénégal foo xamante nit ki day dem tëdd fële rek ñëw bind programme def programme moo gën a yomb mais ñun dañoo ne programme bi ñu def bi ñun ak askan bi ñoo ko def ay wax la quoi du bind. waaw nga nga may ma ma egg. programme bi ñu def bi ñun ak askan bi ñoom ñoo koy def nekkul programme boo xam ne dangay ngay tëdd fee rek xalaat lu la neex nga bind ñëw soumettre ko askan bi te tamit ba tey nee naa la li ma la wax bi may bi may entamé dama ne ñun suñ programme dafa reposé wu ci ci lenn dem déglu askan bi ñu ne ñu lii mooy seen lii mooy seen problème problème boobu noonu ñu jël ko. boole ci li nga xamante mooy assise nationale yi nga xamante daf ñoo engagé pour dañ ko signé jël ko def ko teg ko ci contexte actuel bi bâtir ko programme boobu lañ nekk di élaborer yaa ngi dégg programme boobu noonu nag heure bu génne programme bu jotee ak joxe programme ni ko gi parce que moment bi nekkuñ ci moment joxe programme parce que déjà campagne électorale sa tijjeegul élection dafa am ay délai dafa am ay période période boo période bu nekk bu ñu ci tollee lu ñu ci war a def dinañ ko def mais li am solo mooy Khalifa Babacar Sall bu génnee programme am dina bokk parmi les meilleurs bu nekkul meilleur programme dina looloo ci am